neex ba jéggi dayoo Optic Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous seen marque téléphone yi di mi wan établissement waa kër Serigne Touba Fall frère borom gaamu vite fait bi ñoo leen ni may seen émission xalaas ay ci maa ngi leen di baal yéen ñëpp eh, àq di leen nuyu eh, di di di eh, di xool fu waay nekk rek maa ngi lay seet fi nga nekk tooñu ma kenn ma tax mënuma baalu kenn baal naa ñëpp àq yàlla na yàlla baalal ma leen xam naa bu ma leen bàyyeeg yàlla mën na bañ a baax ci yéen sama collègue yeeg internautes yeeg auditeurs yeeg yéen ñëpp yéen a ma sonal man sonalu ma kenn salaamaaleykum bienvenue à seen émission des faits divers xalaas ci biir RFM point ànd ceeg passe ak Mamadou Mohamed Ndiaye Ndiaye sama waa ji maa ngi lay siyaar jërëjëf Ababacar maa ngi lay baal naa la ak baal naa la ah, alhamdulilah <laughs> alhamdulilah comme nga ma rek baax na <laughs> baa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax a baax ah, loolu baax na déwénati fekkeel déwén jërëjëf passe partout maa ngi lay nuyu baax jaajëf Ndiaye maa ngi lay nuyu baax a baax di la ziar di nuyu le revenant baal naa la baal naa la baal naa la baal naa la nga baal ma Ndiaye maa ngi lay bu baax di la baal axee tamit di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di ziar ñëpp jërëjëf baal ak ñëpp tout le Ndiaye partenaires yi. ñoom it di leen wax déwénati di leen baalu àq. ci léeg-léeg euh, mu war a jàll am changement ci programme bi mm-hmm. xalaas du jàll duñ déglu seen bopp yépp engagement la yoo xamante ne ci ñi ngi leen ci baalu àq bu baax a baax a baax dellu également di leen gërëm euh, muy partenaire yi ñuy àndal ci xalaas bokk ci Optique Vision Plus Sénégal nga xamante ne ci ñoom euh, Sénégal gi yépp leen amel njukkeel Sénégal gi yépp leen di remercier ndax ñoo tax kon bépp sénégalais tàggoo ak problème lunettes lunettes yu baax lunettes yu garantie lunettes yu moderne ay commandes sur mesure ak ay accessoires accessoire lunette yu bax Optique Vision Plus Sénégal ñoko fi andi ba nopi nak fu ngeen nek ñu bëgg leen fa fekk ngir euh, fajal leen seen aajo mo waral bu weesoo showroom bi nek ci VDN bi ñu ubbi boutique ci Kër Mbaye ubbi boutique Optique Vision Plus Sénégal ci Mbour ben ci Touba bu yagul ñu ubbi boutique Optique Vision Plus Sénégal ci euh, Saint-Louis ak ci Louga lepp rek ngir gën leena bëgg a ci ay problème lunette ay conseils ci wàllu vision lepp Optique Vision Plus Sénégal daru euh, Touba daru salam distribution yi indi Dolka ñomit di leen gërëm bu baaxa Dolka di parfum de chambre bo xamante ne ji ku ne war nga ko am sa kër ndax kër yëpp war a xeeñ ñeex jamono ji bu ngeen ci bëggee dem leen HLM Soudida wala ngeen woote ci 77 417 54 64 wala ca marché bu mag nekk ca Thiès muy euh, marché central rue de la gare seen numéro de téléphone 77 549 03 20 Touba Darou Salam distribution mu indi Dolka indi Dolka vanille Dolka rose Dolka fresca citron Dolka super fresca ak Dolka colonia lépp rek ngir bëgg kon ngeen di dund ci bànneex beneen partenaire boo xam ne ñi ngi ànd ak ñoom ci xalaas ñoo établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère it vite fait bi tax nawet neex gamu vite fait bi tax déggatuñu yo wala weñ muy pompe muy cuuraayu bant mu am frotté vite fait am crème épilatoire vite fait am savon king aloe vera ak anti acné établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère c'est numéro de téléphone 77 555 11 11 77 555 11 11 muy gamu vite fait bi di crème épilatoire bi di frotté bi di euh, savon king bi euh, boutique euh, marché bu ngeen dem kon disponible na fa produits euh, produit bu baax la ñu jéxalé ak Mion marque téléphone bu yéme bi té graw Mion am Android am téléphone simple am tablette également euh, revendeur téléphone bu ngeen dem laajte leen téléphone Mion nous sa postolo di nga am téléphone bu baax bo xamanténi ji do rëcc loko doon jëndé ñu am service après vente bu leen koy topal mais également dañ leen koy garantir un an di douze mois lépp rek ngir ngeen baña am benn coono ci téléphone wala tablette yu marque Mion. Ababacar. am na solo Ndiaye euh, paas dañuy dem xool la xew ca Beyrouth wala. ayca loolu ma fa xew. Ndiaye. Mhm. waa Beyrouth ñoo yëglu. waaw surtout jigéen ñi fa nekk. mais bala bala ñuy sori. waaw keroog jour euh, jour julli gi. damaa gis damaa gis lu lu rafet gis nga Aba. Hmm. Sénégal ñun nañu sant yàlla. Hmm. doole ko sant tey ñaan mu gën ñoo. doole defal defal jàmm ak sutura. Hmm.

gis nga bu ngeen doon suivre actualité sous région yi. Hmm. wala yenn réew yi Afrique yi. mais dañ koy suivre. voilà kon mi ngi noonu man pour man du dul xalaas doo ko topp. waaw non on jàpp na ko jàpp na ko yegg na ci kawam ak violé na ko man fi ne yooyu rek laa lay gis. <laughs> mais daal Aba. Mhm. yàlla yàlla dolli sutura dolli. yàlla li ñu am nañ ko respecté te a mhm. mhm. yàlla na ñu gën a dolli bëggante. nañu gën a dolli bëggante. ñu dem Beyrouth. ayca Ndiaye. Hmm. jigéen ñi nekk Beyrouth. bëriwul moo nekk Liban non. Mhm. moo fa nekkoon de xaw ma nag xam nga ñoom ci kii la ñu lonk woon ci Koweït. Ah. ci côté ambassade bu dum passeport yooyu. Mhm. am ku fa nekkoon ku ñuy wax Mbàkke doon leen dimbali ci wàllu woowu. Mhm. léegi nag Mbàkke nekkatu fa te ñoom nekkatuñu Koweït léegi ñu ngi Égypte. léegi nag problème passeport moo posé wu ci ñoom. Hmm. amatuñu këyit seeni passeport jeex na xamatuñ fu ñu koy wutee. Hmm. ndimbal la ñuy wut nag ci état bu Sénégal. mais ana suñu ambassadeur yi nekk foofu. Égypte lañu lonk waaw. ñoom nee nañ déplacement bi xam bu sa passeport jeexee mënutoo déplacé wu. mënutoo dem amatooy këyit ba fa Mbàkke nekkee nag mooy doon dimbali ci yooyu ci wàllu woowu léegi nag Mbàkke nekkatu fa. léegi léegi léegi lu tax lu tax nit di yore passeport di xaar ba mu ne pëng. ba jeex soog a jóg pour renouveler ko. ah waaw mais tamit loolu tamit mën na am explication parce que le problème mooy Ndiaye. Mhm. est-ce que mettre nañ seen disposition. Mhm. fi nga xamante ni. bu seen passeport di waa jeex ñu dem ñu dem déposer parce que fii tamit dañuy ay moment lañ fiy jógee dem. gars yi déposer ñu ñëwaat. non man kii ma leen de damay laaj. waaw moom laa wax maanaam yow bu sa passeport yow bu fekkente ne des na un mois. waaw mm. ah, mais da nga ciy jug pour mm. renouveler ko. non dikk parce que passeport bi valide na. mais dana tax tamit doo dem ba au dernier moment. gis nga gis nga gis nga ñetti citoyen bu nekk ci cim réew ñeent yi da ko war a am. Mm. carte dentité permis de conduire. ak passeport bu valable. bu amul oto nag. ah day bette. mi ngi mel na ngeen di wut parce que du ma tukki. day bette yàlla na ma bett comme ni nga waxee incha am naa ñett yëpp. nañ déglu xool nañ déglu. ñun waa Bayrou dañoo bëgg président bi dimbali ñu affaire passeport parce que léegi dañoo am affaire problème passeport ndax suñu passeport yi jeex na te jug bi pour ñoo defar ko yombul ci ñun bu njëkk nag suñu ambassadeur moo ñu koy doon defaral muy Mbàkke waaye nag léegi nekkatuñu Koweït ñu ngi Égypte nekkatul sax Koweït ndax moom xamoon na ne suñu doole bariwul te ay jigéen la nekk fii ci dëkk yu di daan suñu doole ngir teral suñu waajur wala suñu njaboot te ay jigéen nañu suñu doole bariwul ba moom xamoon na loolu mu ñu daan taxaw ci yëfi passeport duñu taxaw ci lu bari léegi nag dañoo am problème passeport suñu liggéey taxaw na ndax jug bi ñëw pour defar passeport bi yombul léegi nag ñu bëggoon suñu président Macky Sall mu dimbali ñu jàppale ñu ñëw defaral ñu suñuy passeport ndax am nañ ay problème passeport te jigéen a a mu dimbali ñu jàppale ñu ci affaire passeport lu mu gën a gaawee na xeeb na nañ ndax mosuñoo alerté affaire passeport ndax Mbàkke moo ñu ci daan dimbale waaye bi Mbàkke demee ba léegi am nañ problème passeport suñuy liggéey taxaw sonn nañ daal ñu ñëw defaral ñu passeport soxla nañ ko lool sax xalaas ma Njaay waaw bi ma ne ko lii de ko ne sañ na ko yëglu nañ mënoon nga koo jox keps nag keps caam waa ci affaire mm. kii. diaspora ah, ah allo ah allo diaspora la wala. diaspora nga naan allo diaspora. ah ay xam. <laughs> mënoon nga koo jox. mais benn la rek ci ci ci benn la rek. parce que comme moom yàlla dimbale na ko ba. fi mu ne autorités yi dañuy bàyyi xel. Mm. émission boobu ndax. Euh, doomi Sénégal yi nekk bitim réew ñu ca Paris. Mm. ambassadrice la de. très bien bu ñu amee lu ñuy jooy. ñu gàddu seen ronk ñu wutali keps moo tax yu mel nii boo ci amatee mm-hmm. de ko jox keps dina <laughs> dina dina dina ko ci woo bu soobee yàlla keps càmm dina ko ci woo am am na ko gën min, miin diaspora bi keps fi nekk nii de mm. waaw kooku ab gp la de kooku miin kooku <laughs> miinul benn diaspora de kooku day jël fii ay bagage yóbbu ko jëlee bagage fee indi ko kooku ab gp la de bul jaawle de eh, kan nga ni nañ dem ci <laughs> kan laa wax xalaas gi ci topp yow yow laa gis nga jënd kilo tub cent et quelques mille juum yow Ya ko jënd yaa juum Ndiaye damaa juum de. xam nga loolu boo ko solee waroo teg dara ci kaw. moo tax kenn ma jege moo ko solee. Ndiaye loolu bu ma bu fekkee fu ma ko solee te ci émission bii sama fan show gi laa koy solee Ndiaye damaa jënd ay yëre yu bari yóbbu fay ci kees gi ñu ne ma nangam la ma génne di fay bi mu nekkee nangam ma ni waa lii lan moo war a tax yegg nangam am na lu ci de femme bi ne ma kilote bii la te kilote bi Ndiaye nekkoon sama soie de dama xool nii mu xam ma xam ni bu ma ko solee dina rafet ak nii nangam rek ma mais choisir. moom sama su ma ko jëndoon moom lay tabaski. mi sama honneur parce que bu américain yëpp ak ma wër sama <laughs> honneur comme <laughs> comme maa ngi doon kaana kaana lu du ma nangu kaana yi gën maa nekk ay kaana. Oh. <laughs> yow nga yaakaar ne yaa ngi kolobaan gi sëgg sigi bi génne femme bi génne ba woon ma étiquette bi dama culotte bi ñaar lii lay jar dama ko dama traduire xaalis bi gaaw vite fait abaa loolu ñun ñaata xaftaan nga ci mën a am ci suñu tailleur yi ay Chinko prestige ay kii ak yooyu. yaay sa dama yegg sama yaay laaj ma ay affaire yu may laaj ndeke xale yi capturé nañ vidéo ba woon ko ko sama yaay laaj ma ay yu manqué ay sobleeg yooyu ma ne ko nag nag quand même trop c'est trop mu ne ma trop kay ci kër bi la commencé trop. <laughs> ma arrière na ko yaay waa maa ngi la koy envoyé sa doom yi de fuñ buñ màggee nañ dégg seen kilotu bàyyi ba. Eh, eh. <laughs> ne eh Ndiaye mu sën na maa dal de. <laughs> damay xale. sama papa joxoon ñu xaalis fourniture bi xaw ma fan la ko lijjanti ba euh, ba daal ñu koy jox eh, ma dem jënd ci ay dàll si jëndee xaalis bi yëpp dàll bu ñu tegee ceeb bi njaay mu dugalee sama loxo sama papa day seppi na ma seppi lu ma xam ni saako ceeb bi jar yow wér nga <laughs> lépp laa jëndee daal njaay ma eh njaay damaa juum de. Dakar FM bi ñu ma njëkkee fay salaire <laughs> damaa romb ay timbalaan dugal ko ci. Eh, xoolal loolu. dem sama papa ne daal di dugg ci kër gi. <laughs> jëndee nga ko lu diis. xoolal non dama ko cee dugal. war a dóor dàqan. ah daa awas. <laughs> sama daal di dugg ci kër gi. problème bi yi bëggut a jëlaat dal yi. te sama papa ne daal di dugg ci kër yaay njaay pareen saay ah. nga gis ay ñuy def espoor yu metti daal bind ci suuf ne faites pas ça c'est waaye kilote bi na na acceptez pas ça <laughs> ah sa doom bi dañ dégg sa kilo ah non dara baaxu ci waay dara baaxu ci li def dara dem ba màgg taxaw du ay responsabilité de ñu seen kilo tubaab bi naa napp rek naa napp rek inshallah ci xalaas gi njaay Souleymane Diouf Souley Diouf daa jóge Dakar samedi xam nga njaay ñu fi wax doy ci transport yeeg ñi leen di dorogeeg mhm. di enlevé yooyu loolu fekk fi woon aba ah? waaw neew la de mhm. Souley daa jógee dakaar di dem seen dëkk di julli ji samedi Souley ba léegi eggul. ci tabaski bi te ba muy départ samedi woote na seen waa kër leen mi ngi ñëw. kon dara jotu ko. mécanicien la am na ku mu doon dépanner otom kooku moo koy indaale. Hmm? Souley ba fii ñuy wax Souley egsiwul. Hmm? waaw julli ga ba léegi. Souley julli jiwul Souley ñibbisiwul Dakar. te kenn xamul fu mu féet kenn xamul na Souley. nañ déglu. déglu nañ déglu. ñu leen di sant di leen gërëm ci seen liggéey bu dul jeex bi amal njëriñ nit yi. waaw man la Jean Marie Dione dëkk ma ko kawoon waaye nekk fii Mbour. sama jërbaat bu tudd Souley juuf waaye turu dëggantaanam ñoxo baay juuf la ci carte d'identité bi dafa jógee maanaam dakaar le samedi samedi dernier à vingt une heures woo na mag ji son frère Bouré woo na ko nekk am naa oto maa ngi ànd ak koo xam ne kawoon la dëkk mos naa ko defaral oto bu ñu yegee ba kawoon moo may puus moo may yóbbu ba makka kawoon ci suñu amo bi bu tud taga bokki digante kawon ak maka kawon ak peu près 4 km la samedi ba léegi gisagun ko jigsul yaayam ngi jaxle jomi lol amon na itam benn copinam bu mu wowoon sam samedi ba ne ko ma ngi dik waye koku itam mo ngi laajte be legi toujours xamul fu mu dem yëgsuwul fofu gisul koku wa mécanicien la won nak nek Dakar dafa naa jëppal samedi dal la fa joge à 21 h la wax son frère ne amna auto anda ko xamne musna ko defaral auto mu dekk kawon bu nu yegge be kawon moom may puus ba may egg sunu kër samedi ba léegi kenn gisul waaw su lay lañ koy woo waaye ci carte d'identité bi ñoo ko bàyyi Diouf la tudd papa mu ngi tudd Mbagnick Diouf waaw dafa gaañu sax ndeysaan yaay ji tudd xaddi luum waaw doomu Mbagnick Diouf la ak xaddi luum waaw waaw Maka Kawun waaw quartier bi ñuy wax Daga Oki ma ngoog Ndiaye. mais xëy na na ah nañu rafet njortu rek amaana fii ki fan. waaw dinañ ci dégg dara. en tout cas Souley ñu koy wax ñoo ko bàyyi Diouf mën na ci ay këyitam. Mhm. mais Souley lañ koy wax. moom eggul egg si waatul fii. eggul dëppul. yàlla na ko jàmm rek tey. ah amiin. yàlla na ko waaw. Mm-hmm. yaay xale ya ñu ngi ci aba say doom bu ñu màggee euh, dinañ leen wax seen kilo bay bi mu ne ma kilo tubaay ak tay bay moom am ben différence loolu la <laughs> bi bind fex nga bok ci histoire mm-hmm. <laughs> kilo bi de conseil c'est que man Ndiaye ma conseillé wul man ma nekkul ci yooyu mm-hmm. man Ndiaye bu xolé ay am di cuus yeneen yi nga xamni ne la laa koy jëndee sax duma ko wane mais kilo bi moom dama cee juum na lolu mo infraction vestimentaire dama cee juum torop torop torop man lu ser mom day du man exactement ñaata la 105000 je pense ah ok ci mu ñëw rek infraction vestimentaire day am. <laughs> booy ñu dem gaaw balaa président si ñëw fu ñu jëm xalaas gi dama maa ko wax. waxi naan. dañoo xëy fekk fa benn ndaw bu fa teer ñàkk ba kanam ca tefes ga. fan. bu ko ay mbokkam déggee waxi naan. géej waay. waaw. waxi naan da géej. Ah, loolu kañ la euh, li ngay wax ni. Euh, barki démb. Hmm? ñu déglu déglu. man dama jékki-jékki rek ma ne xaaral ma dem géej fekk ay six heures noonu laa yeew am foo xamante ne foofu laa waroon pour mu won ma ko mais dem naa fa deux fois fekk mu ko foofu noonu après si laa si xaaral ma dem géej mais mais ba ma demee ay huit heures yooyu noonu avant neuf jot daal man daal maa jël benn gurtu ma ne xaaral ma def ci ndox su ma naree su ma demee ba ci territoire bi affaire yooyu noonu mun a raxas samay tànk quoi mais man daal maa def ne gis affaire bi itam ma xam ne lii nii la comprendre nga après am na deux copains nag yu nekkoon foofu noonu après si laa kenn ki ko noonu lañ taxawee daal ba kii ni sapeur ak police mais oto daanaka man maa jëm ba foofu noonu ba police wàcci naan ànd ak gars yi ñëw si lañ commencé nag def seen yooyu noonu après si la ñuy xaar ba kii ne ñëw sapeur sapeur nag si lañ ko jëlee doog ko yóbbuwaat police ba pour ñu def ay kiine yooyu noonu nu mu tëddeeti ay ay enquête ak yooyu noonu no man man bu ma moom moom benn tiset bu bula kese la sol benn tiset bu bula comprendre nga teg si ba ma déggee kii nii sapeur di commu ñuy communiquer maa ngi dégg kooku noonu di naan xaw ma ay quarante ans jàpp xaw ma lan côté yooyu daal la am mais xaw ma nag fu mu jógee exactement dégg ko Ndiaye. bu baax waaw ku ci am xibaar na mën nañu wo ci 77 150 17 17 moy sama numéro xalaas ñu daje fa. xam nga ndam li. ndam li maa xam. ben tournoi la bo xam ne du 3 au 12 août 2022 stade Alassane Djigo. waaw tournoi bu am solo. hmm dinaa lox suba yan yan juróom-ñetti équipe yan huit yan huit équipe ñokoy ñokoy ñokoy football. bu ci yem de. Hmm. boy waxale yan 8 équipe ci football da ngay wax fan lay amé ak kan moy euh, speaker bi. A nekk ci stade bi promoteur bi. koy le <laughs> président. <laughs>